su ma nuyoo monsieur le sous-préfet de nuyu le defe naa nuyu conseil municipal bi yëpp ak ñi fi nekk ñëpp di rafetlu jataay bi di commencer rek boo ma ko mayee fii monsieur maire lemaire maire daan muy affaire ndoxu Touba bi defe naa ren ñun màggal gi ñu màggal muy Covid bu du woon tak ndox mi cet nañu jàpp ndax màggal dàq ko mais ndox mi moom moo ñu gàllankoor surtout ñun jigéen ñi. defe naa nag problème mu ndox ni ko monsieur le maire waxee hydraulique kese mënu koo regle commune rek mësu koo rek mënu koo regle maa ngi fàttali ko ay jamono bi fi éducation nationale amee problème dañoo woote assise donc au niveau de Touba je pense que assise de l'eau mënu fee ñàkk acteurs yi mu concerné yépp ku nekk toog wax sa xalaat ñu xool na mi doxee ba au plus haut niveau bu ma jógee ci loolu monsieur le maire dañuy wax orientation budgétaire ñu rafetlu liggéey bi ngeen def surtout ñëw Pacasen au niveau de la commune de Touba loolu mooy wane liggéeyu commune de Touba ndax Pacasen du n'importe qui moo koy amee fu ñu jaar xoosa euh, euh, ay objectif la lu ñuy viser ci communes yi ba ñu mën koo jox la ko kon nag seen liggéey dafa rafet ba tax Pacasen ñëw fii fekk na yéen tam am na yu réalisation yu bëri yoo leen doon def mais man yu bëri xaw ma ko woon parce que damay wax toujours mairie Touba ngeen baal ma dañuy manque de communication communication bi il faut ngeen ciy wax beneen bi Euh, orientation budgétaire yi hôpitaux yi c'est vrai boo leen ko defee ñu jigéen ñi ngeen ko defal éducation yi ñu ngeen ko defal ndax suñuy doom mais bu leen fàtte étudiants yi monsieur le maire étudiant Touba yi sonn nañ trop mu defe naa sëñ si moom medd ma bàyyi ma fen yow mi tamit doo ma bàyyi ndax defe naa yéen ñi ku nekk wax naa la étudiants yi euh, métti na parce que ñoom du Dakar rek université yi bari nañu mais au moins xaw ma noo leen doxalee ak ñoom kii euh, euh, seen orientation budgétaire yi budget bi ban kii lañ ci am montant lañ ci am mais xam naa boo leen mënoon a jàppale gën a jàppale laay wax sax dina baax lool parce que ni élèves yi sonnee fii. bu ñu demee Dakar wala ñu dem Ndar wala Casamance wala Bambey foofu la ñu gën a sonne parce que man xam naa ci dara euh, transport bi tamit naa ci ñëwaat tuuti surtout pour les jeunes filles de la commune de Touba Mosquée. Euh, sëñ bi mi ngi wax léegi nii euh, parent d'élève la Kayre fa mu nekk la doon defendre nga baal ma sëñ bi mais bul fàtte ni Mbàkke 3 fu enclavé wu la te jigéen Mbàkke 3 ak Mbàkke 4 Mbàkke 4 moo tane sax parce que Mbàkke 4 10 bi na fi jaar 1 bi na fi jaar mais Mbàkke 3 dafa bëri ay élèves yu fi nekk yu fa jógee te foofu bu la fa yenn heure yi fekkee sax mën na la fa kidnappé. parce que dox bi dafa métti foofu kon nag man damay naan toujours dama koy wax toujours ni pourquoi Dakar amoon sotraak ñu temps yi ñu fay jàngee mu am tarif bu yam pour étudiants yi ak élèves yi pourquoi Touba ville bu ñu tollu deuxième ville du Sénégal élèves am yi xam ne Touba amul école yu mag ñoom mënuñu am loolu ndax ñun jigéen ñoo sonn ci kër yi ñooy xëy jox suñu doom yi paas ñuy jàngi ñaata do xale la ñuy xëy leen jox paas xale yi fa ñuy ndékkee des fois la ñuy añee. loolu benn jigéen àttanu ko métti na lool te euh, seen budget bi gis naa ci léegi ngeen ni euh, bi Covid bi ñëwee activité génératrice de revenu yi muy AGR yi dafa wàññeeku bu baax ndegam ci ñëpp la wàññeeku asama jigéen ñi nga xam ne ñoom ngeen di fekk ci marché ñuy palaatu di segal gerte gi di jaay ay sër ci marché te bu ñu wàccul joxe bu 500 francs ñooñu il faut ñu bàyyi leen xel noo leen di bàyyee xel nag dafay métti des fois. defe naa indi naa fi benn dossier keroog sa kanam indi naa ko mi ngi en cours loolu ma la ciy sant la ci remercier ndax ñun dañu fi nekk le ministre de la femme de la famille de la protection des enfants léegi moom li mu mën ak li mu mënul c'est le lieu ma koy remercier fii mais li mu def ci sociale bi mu ñëwee ba léegi gisaguma ko boo fi def surtout au niveau de votre commune fii mi ngi ko fiy def ba ci jumelle yooyu. mën na def lu régler lu ponctuel mais mënul régler lu continuer parce que jumelle yooyu seen yaay dafa génn àddina bàyyi leen fii maag Mor Lo ñoo àndoon ak développement communautaire euh, euh, mais boo demee seen kër dañu xam ne ñii aaju woon nañu ndimbal loolu moo tax bi ministre de la femme appuyé ba pare ñu indiwaat dossier bi sa loxo pour nga continuer ko cas yu mel noonu dafa bëri nga may ma àggale ci kenn benn cas rek laay joxe duma wax tur parce que cas social la parce que euh, développement communautaire ak action sociale ak SEDAF ñoo bokk lu ñuy liggéey dafa am xaarim euh, dafa dem ba tëlew am benn jigéen bu mu envoyé jigéen bi dafa nekk chef de village bi sax saisir naa ko woo naa ko parce que dafa nekk këram di sëy ak boroom këram ak moom ñeenti doom mu xëy xëy jëkkër ji ne ko dama lay wàcc naa la génnal kër gi mu ko amoo fu ma jëm mu dajji baraag ba mu dëkkee woon dem jaay ko ni ko génnal dafa dajji baraaj bi wala ko bëgg a jaay kër gi chef de village quartier bi ni ko doo jaay kër gi loolu moo ko may chance waa Safiyetu amaan sax saisir nañ ma keroog jigéen ji ci ma ci jumaa ji la fanaan ak ñeenti doomam loolu amul sécurité ci moom amul sécurité ci doo xale yi ak période bi ñu nekk loolu yan mesure la ci la ci la commune bi mën a jël parce que xëy na mënoon na SEDAF am na logement mënoon naa kaa faa yóbbu mais pour diir bu gàtt lay doon après ak lu koy lekkal lu koy naanal kaa yooyu dafa bëri Touba trop trop trop trop trop monsieur maire loolu daal laa bëggoon ci orientation budgétaire bi ñu nekk su fekkee ni am na loo xam ni alloué ngeen ko jigéen ñi ak jeune fii yi soo leen ko mënee yokk ngeen yokk ko yaa ngi def social naam dëgg la gis naa koor gi gis naa ak ñeneen ak ñeneen mais dafa am ñoo xam dañoo aajo woon dimbal GPRS waroon na fee toog euh, ñu xool encore surtout jigéen ñi li ministre de la femme mën mi ngi koy def développement communautaire li mu mën mi ngi koy def action sociale li mu mën ma ngi koy def mais daal ñu leen ñaan nga gën a jàppale jigéen ñi a xale jigéen ñi ngeen baal ma àq yéen ñëpp